ak benn boo xamante ne cas communautaire la mooy cas boo xamante ne xamaguñ fu mu jógee fu mu jëlee jàngoro bi mën nañ wax tam ne tey bésu tey bi juróom-ñaari patients yu ñu hospitalisé woon wér nañu danañ leen génn tout ñu wax ne ñuy hospitalisé seen état de santé am na tan bu baax bu ñuy xayma tey boo bëgg léegi téeméer ak fanweeri cas Sénégal compté am fuk ak juróom-ñett yu si wër bon dëgg mën nañu wax né tay am na téeméer ak fuk ak ñaar yu nekk hôpital ñu leen di suivre ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demander sénégalais yi ak sénégalais yépp ñu respecté li xamante mom lañ leen digël ci xéxu jàngoro bi